نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه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 وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين عذ... إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم بارك الله فيكم barakallahu fiik kon li ñu xale boobu jàngal noonu mooy suuratul buruj muy saaru nguunu ya burj ay néeg la yu biddiw yi di dugg di génn maanaam di fanaan di génn walla di fa def diire bi nga xam ne moom lañu fay def ci mu sob borom bi saar wi màkka la wàccee sama idaatil buruj mi ngi def ci ay aaya vingt-deux aaya wàcc na ginnaaw suuratu shams saar wi am na sababu nuzul bu siiw boo xam ni ñëw na ci ndax fi borom bi ne qutila asxaabul uxduud asxaabul uxduud benn mbooloo lañu dëkkoon ci najraan ay nasaara ñoo fa nekkoon waaye ñu amoon buur bu saay-saay bu ñuy woowee zunuwaas zunuwaas moomu moom yahud la bëggul woon diinay nasaara zunuwaas amoon benn góorug njabarkat boo xam ni moo ko daan waxal yi ñëwagul di ko njabar di ko njabaral ba nit ñi ragal ko loolu dem na ba waa dëkk bi jàpp ne buur bi dafa am xam-xam fekk ne amul xam-xam dafa nekk ak saay-saay bu koy jàppale loolu dem ba ci yàgg buur bi ne moom mooy yàllay dëkk bi daldi wootewoo yàlla ndax comme lu nit ñi bëgg a def dañ ko koy xamal mu wax ko balaa moo ñëw su ko defee nit ñi naan laay buur bi de xam na lu ñëwagul moom mu daadi làqu ci ginnaaw loolu ngir not dëkk bi dem na nag ba jamono njabarkat bi ko doon njabaral commencé jëm mag bi mu jëmee mag ragal na ne léegi mu dee mu wax buur bi ne ko man kat lii ma lay defal ba nit ñi topp la bis bu ma dee dinga ko ñàkk te maa ngi nii di jëm mag kon dama bëgg nga tànnal ma xale bu ñor ci xale yi ci dëkk bi ñu indi ko ma di ko jàngal njabar su ma ko jàngalee njabar ba mu mën man suma ma dee moom mu continuer liggéey bi yow sa nguur daa sax bi mu ko defee buur bi nag woo ay conseillers ne leen nañu ko xoolal benn xale xale boobu bu ñaw lay nekk maanaam wax critères yi njabarkat bi soxla fekk dëkk bi am na xale bu ndaw bu fi nekk bu am 12 ans mi ngi tudd Abdullah ibnu Taamur xel yépp daje ci moom ñu ne buur bi xale bi dey moom lañu gis ni am na ñoruk mën a jàng mën a jàpp buur bi woolu ko xale bi ñëw mu ne ko dañu lay jël di la fay ngay jàng ci buur bi xale bi daldi kontaan lool ndax ci ndigalal buur lanu koy jàngalee te di ko fay te muy xale muy yóbbul ay wayjuram xale bi tàmbale di xëy di ñëw njabarkat bi di ko jàngal njabar xam ngeen ni njabar lu bon la lu islaam bañ la ndax wala yuflixu saaxiru xaytu ata njabar lu islaam bañ la borom bi taala wa tabaarak nee na wa maa kafaru suleymaan walakin ash-shayaatiina kafaru yuallimuuna annaasa sixra nee yonti yàlla suleymaan du njabarkat waaye seytaane yi ñooy njabar xale bi di dem su xëyee ndékki jóge seen kër dox dem ca njabarkat ba mu téye ko fa mu yend fa mu jàngal ko njabar mu dellu xale bi tàmbale naa xam ci njabar mi dara waaye li ñu koy jàngal ay bind la yuy woroo ay tànki ganaar ak i tànki béy ay xaatim ak i tolaasim maanaam nekk loo xamante ni maanaam yi bariwut xale bi benn bés muy dem di <coughs> jàngi daa romb benn bërëb bërëb boobu bi fa xale bi tolloo mi ngi dégg benn waay mu ngi wax ci biir naan yaa xayu yaa qayum yaa fatira alsamawati wal ard anta alilahu alxaq laa ilaha gayruka wala rabba siwaak asaluka bi ismika alacdam an tagfira lii wa tarxam ni bi xale bi déggee baat yi baat yi yéem xale bi ndax dégg na antal ilaahu alxaq dégg na ci yaa xayu yaa qayum dégg na ci yaa faatira samaawaati wal ard xale bi taxaw ba ci yàgg mu ne waaw baat bi baat la bu doy waar waaye continuer dem ca suba sa mu jaaraat fa déggaat góor giy wax loolu xale bi ne il faut mu dugg xale bi dafa dugg rekk dégg góor gi di wax baat boobu xale bi laaj góor gi baat yi góor gi waxal ko ko mu ne ashhadu an laa ilaha illa maa ngi seede ne amul benn buur benn boroom bu dul yàlla taala wa tabaarak xale bi wax baatu seede yi imaan dugg ci xolam mu tàmbalee jooy bi mu ko defee xale bi ne ko man dey njabarkatu buur bi moo may jàngal njabar bi mu ko defee góor googu ne ko yow daal na la biir ne soo bëggee ma jàngale dinaa la jàngal waaye nag ni ngay def mooy soo xëyee jaar ci man jàng dara continuel nga dem ci njabarkat bi xale bi di def noonu benn bis mu ñëw njabarkat bi dóor ko ne ko lu tax nga tardé bi xale bi del siwaatee wax ko góor gi góor gi ne ko saa boo fi jaaratee boo jàngee ba pare soo demee su la njabarkat bi laajee nee ko sunu waa kër ñëw ma tee woon dama tardé soo ñibbee seen kër ñu ne la lu tax nga guddee nga ñi leen njabarkat bee ma tee woon moo tax ma tàrde xale bi nag commencé nuurul imaan di dugg ci xolam di ci yëngatu xale bi tàmbalee nekk ku am ngëm continué nag léeg-léeg mu tardé nja kii njabarkat bi laaj ko mu ne ko waa kër gaa ma xaw a tardeel léeg mu ñëw seen waa kër laaj ko mu ne leen ci jabarkat balaa nekkoon bi mu ko defee benn bés xale baa ngi dox di xalaat naan waa man ñaar yi may jàng ban moo ciy dëgg góorug làbbe bi bi may jàngal man day sama xol boobu la nangu waaye njabarkat bee di wax lu ñëwagut man waxam doyuma dox ba ci yàgg gis dëkk bi jigéen ñi fañ doon rootee ñépp a ngi taxaw jaaxle boroom kër yaa ngi taxaw xale bi ñëw ne leen lan la ci mbedd bi ñu war a jaar pour dem ca tool ya dem ca teen ba benn gaynde moo fa goor daa tëdd foofu kenn ñemewul génn bi xale bi ñëwee laaj ñu ne ko gaynde moo tëdd ci yoon bi te nanguwul jóg ñun de tey naru ñu am lu ñu añee liggéeykat yi naru ñoo liggéey xale bi na alhamdulillah moo tax nekk xale du tee baax nekk xale du tee am xel nekk xale du tee bëgg diine xale bi na tey ça fait tey ma xam njabarkat bi ak sama góoru làbbe bi ku nekk ci dëgg daadi jël benn xeer bi mu jëlee xeer wi ne allahumma in kaana amru rahib ahab ilayka min amri saahir faqtul haadihi dabba xata yamdi nnaas mu ne yàlla su fekkee ni abe bii may jaar mu di ma jàngal diine mbiram moo gën mbiru njabarkat wi xeer wi suma ko sànnee yàlla yàlla na nga ci def keemaan mu rey gaynde gi nit ñi jàll bi xale bi ñaanee loolu jël xeer bi xeer bu ndaw sànni ko mu dal gaynde bi gaynde gi ne këlam de nit ñi yuuxoo tàccu ne allahu akbar waaw xale bi day kemaan la kii wàllu yàlla la kii nitu yàlla la coow li nag commencé yëkkati xam nga ni xeer bu mënta rey bëy bu rayee gaynde mbiru yàlla moo ca ànd ak it am lu mu nar ndax wallahu gaalibun ala yàlla lu mu bëgg mu am da koy amal bi loolu amee coow li bari xale bi jàll ñëw ci góoram gi ñu daldi wax góor gi li xew góor gi ne ko ay sama doom bés ni ki tey yaa ma gën yaa ma gën fa yàlla yaa ma ëpp may waaye nag na nga xam ni dinga am ay nattu ndax yoon bii nga jaar muy yoonu njub ku ci nekk am nattu ma ni wax na dëgg képp ku jaar ci njub danga am nattu ñi ngay dëkkal duñu la dégg duñu la comprendre danga contre mag ñi danga weddi mag ñi danga nangam nangam du ñu xool li ngay wax ndax alquran la wala sunna la yàllaa wax wala yonentam waaye daal féeg li ngay wax arrangé wu leen ñu ne yow danga contre loolu nag moo yàggar ci àdduna bi góor gi loolu waxee xale bi ne ko nag man dey mag laa maa ngi lay ñaan bis bu natt boobu ñëwee sa kaw suñu la laajee bul wax fu ma nekk ndax man mag laa te mënatuma lu bari xale bi ne ko waaw xale bi daal dem jàngi ñibbisi toog nangootul jàngi lan moo tax gis na kéemaan gis na lu dal xelam xam na ni jabar bee du dëgg xale bi yàlla boole na ci lam ko may day faj ku feebar day faj silmaxa ku mu ñaanal nga wér dëkk bi ñi feebar commencé daw di ñëw xale bi di leen ñaanal balaa mu laa ñaanal dalay wax ni il faut nga nekk jullit ma doog laa ñaanal boo ne ashhadu an laa ilaha illa mu ñaanal la nga wér buur bi amoon na benn silmaxa boo xam ne xaritam la nekk conseil am jege ko lool kooku dégg na ne xale bi day faj silmaxa mu daldi ñëw seet ci xale bi bi mu ñëwee ne ko dama dégg ne yow dangay faj ku feebar xale bi ne ko inni la ashfi ahadan innama yashfi llah fa in anta amanta billah daawtu llaha fa yashfiq fa safaak xale bi ne ko man duma faj yàlla mooy faj boo gëmee yàlla ma ñaanal la yàlla faj la waa ji ne ko dëkk bi am na beneen yàlla bu dul buur xale bi ne ko ah, waaw kee buur la nit la rek du yàlla de ndax day gëmmentu day nelaw day am soxla day dem cabinet kon mënul nekk mënul nekk lu dul buur waaye nag mënul nekk yàlla waa ji ne ah, loolu doy na waar dëkk bi yépp buur bi gëmloo na leen ne moom mooy yàlla xale bi nag ne ko du yàlla commencé nag ne ko yàlla moo ñu bind ñun ñépp yàlla moo ñu moom yàlla moo ñuy wërsëgal yàlla moo ñuy faj buur benn la ci jaam yu néew doole yi yàlla ko jox kemaan waa ji ne ko ah, bëgg naa nga faj ma de mu ne ko charte faj bi mooy nga seede ne amul benn borom bu dul yàlla silmaxa bi daa wax kalimatu shahaada bi mu ko waxee xale bi ñaanal ko raay ko ci kanamam mu xippi daa xool bi mu xoolee ne alhamdulillah ngëm dugg na ko moom it mu daa daw bi muy dem xale bi woo ko ne ko xam naa ni ci buur nga nekk te xaritam nga ne ko dana la laaj waaye bu la laajee bu ko wax ci sama mbir dara bu ko wax man la waa ji ñëw nuyu su buur toog moom buur ne ko ah ay yow lu delloo si say bët ak li ma def ci alal ci yow ñu faj la ba sonn mu ne ko ah waaw man dey mujj naa faju ku la faj mu ne ko benn xale moo fi nekk day moo ma ñaanal ma wér mu ne ko ah mu ne waaw mu ne ko nan la la pajee mu ne daf maa wax ni naa sedd ne amul benn buur bu dul yàlla buur ne ko beneen buur bu dul yàlla am na fi bu dul man ah waa ji ne ko waaw wax dëgg yàlla ndeke am na beneen buur bu dul yow gis nga nit bu gisee lu ko tax a ngëm boo ko doon rey dootul weddi ne ko ah am na de man de xaw koon waaye ndeke xam naa ne am na beneen buur bu dul yow waa nag ne ko da weddi buur boobu walla ma rey la gis nga buur du mbokk su doon mbokk sa xaritu benn bàkkan dara warul jar nga rey ko waaye gis nga buur intérêt moom amuñu lu dul seeni intérêt seeni intérêt féeg yaa ngi koy laal ñu ngi dal sa kaw boo ko laalul ay xarit ngeen waa ji nag gis na ni moom ngëmam dootu ko sàgganee di ko ñàkk buur bi ne ko dangay weddi yàlla boobu ngay wax walla ma rey la waa ji ne ko duma weddi buur bi woo zabaaniya yi ñu tee ko di ko mbugal di ko lakk di ko dóor di ko torturer ba waa ji amatul force ndeysaan mu ne leen xale bi ñu doon yóbbu ci kële mu di ko jàngal xale boobu la ndeysaan ñu far ko rey bi ko reyee buur ne nañu woowi xale bi te xale bi noonu na ko bu ma wax waaye nag illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil imaan ku àttanul mbugal suñ la weddiloo sax mën ngaa weddi te du tax nga nekk ku weddi ñu dem indi xale bi buur bi xool ko rek kontaan ne ah, kon njabar mi ma fayoon ñu lay jàngal léegi bënn na ba yaaraw ke la doon jàngal xale bi ne ko man duma njabarkat mu ne ko waay yow may fay ñu lay jàngal njabar pour nga remplacer buur bi woo ko ci biir ne ko hé gis nga man li ma fi nekkoon ak buur bi man xam naa ni du ma yàlla waaye sama njabarkat bii moo ma doon waxal lu ñëwagul su waxee ma wax ko ñépp ne loolu ma nekk yàlla ma di ko jox moom alalam bëri pour ñu toog kenn du xam comme léegi nag yaa raw kële jëlal place xale bi ne ko man <laughs> man du ma njabarkat de xaw ma lu ñëwagul mënu maa wax lu ñëwagul waa ji ne ko nga ni ah, looloo nekk buur bi xalaat ne xale bi da koy nëbbatu waaye njabarkat la dans un premier temps buur bi ñemewul te buggul rey xale bi ndax amaan na bu reyee xale bi suba njabarkat bi dee afeeram yàqu mu ne na négocier ak xale bi naxanteeg moom bi mu waxee loolu xale bi ne ko man duma njabarkat ndax njabar dafa xaraam wax lu ñëwagul la yàlla da koo tere buur bi nag ne ko kon dangay weddi sa yàlla gëmma xale bi ne ko loolu mënul nekk sama xol bi yàllaa ci nekk te duma ko weddi buur bi daal jël ay nit ne leen kii xale la te dëkk bi ñu ngi ko tàmbalee gëm su ma ko reyee ci dëkk bi ñu yëg ko ñépp danañ gëm ma perte nit ñi lan mooy xalaat ñu ne nañ ko génne ba ci biti dëkk ba rey ko kenn du ko yëg bu ñu ñëwee ne dañ koo tëj kaso rek xam nga buur yàgg naa def loolu rey ba pare ñu ne ma nga kaso ma nga kaso fekk yow ma nga bàmmeel buur bi ne leen su ngeen demee ba ca génn dëkk ba am na montagne bu kawe yéeg leen foofu ne ko na weddi yàlla su weddee yàlla ngeen bàyyi ko mu delsi su weddiwul yàlla ngeen bëmax ko mu dee gaa yi ànd ak xale bi dox bi ñu doxee ñëw ba ci montagne bi yéeg ba ci kaw taxawal xale bi ne ko weddil sa yàlla xale bi tàllal loxo ne allahumma akfinihim bi ma shita muy ñaanu sunna bu am solo yàlla yal nag ma fegal ñii seen ak jëf ci ci lu la neex bi xale bi ñaaneelu rek xeer bi yëngatu bi xeer bi yëngoo ñi yéegoon mbooleem ku yéegoon daanu dee xale bi jafandu wàcc ndànk dox jëm kër buur nga ni waaw xale bi buur mi ngi ko bëgg a reylu boole kook nit ñooñu dee mu dellu waaye xale bi xam na ni daawa moo ko gënal lu ne te bëgg na dëkk bi yépp del si ci ngëm yàlla dell ci nasaraan ya xale bi dox ñëw bi mu ñëwee buur bi daw ne ko lu xew ana ña nga àndaloon mu ne ko ñooñu dee nañ mu ne ko nga ni mu ne waaw ñooñu dey moom yàlla dogal na ni dee nañ mu ne ko booy tee ngaa weddi ñëw ci man xale bi ne ko man mënumaa weddi man gëm rek laa mën a def waa ji ne ko dangay ngay weddi mbaama rey la mu ne ko ay ca buur bi woolu ñeneen ne leen léegi ni ngeen di def na ngeen ko génne dëkk bi dugal ko géej ci ci gaal su ngeen dawee ba ca digg ndox ma ngeen weddiloo ko bu weddoo ngeen bàyyi su bañee ngeen takk ko tëmbal ko gaa yi yéegaat gaal gi fees dell dama dem ba ca digg géej ña ko weddil xale bi ne allahumma akfini bi ma shi'ta yàlla maa ngi lay ñaan nga fegal ma seen ay ci lu la soob rek duusu géej yi yëkkatiku gaal gi yëkkatiku galaw galaw nit ñi wadda wadda ba deex mu des xale bi xale bi joow ñëwaat ah bi xale bi joowee ñëwaat su buur muusoon day bàyyi xale bi waaye ku nar a alku day dëgër fit day ñeme ku nara a alku lu koy arranger rek lay def bi xale bi ñëwaatee buur bi ne ko ana sa gaaya mu ne ko yàlla aaral na ma leen aar na ma ci ñoom ah buur bi nag ne nag jaaxle na nan lay def xale bi ne ko buur mu ne am ah, ne ko boo ma bëggee rey mënoo maa rey man rek maa la mën a wax ni nga may reye buur bi ne ma waaw wax ma kon noo ma nu ma lay reye mu ne ko dangay woo waa dëkk bi yëpp ci pénc mi xam nga xale bi ndeke politique lay def waaye politique ku daawa boo xam ne dëkk bi yëpp la bëgg ñu gëm ngëmu gëmu dëkk bi jaral na xale bi mu joxe bakkanam loolu mooy tadxiya loolu mooy li ñuy wooye sacrifier sa bopp pour l'islam loolu jullit ñi yàgg nañ ko def xale bi nag ne ko da ngay woo waa dëkk bi ñu génn ci pénc mi suñu génnee ngeen yéegal ma ca kaw garab bu kawe walla montagne su ko defee sama fett bi ma yore ma jël ko jox la ko nga génn ci benn bant fett soo ko génnee li ngay wax danga naan bismillahi rabbil gulaam boo bàyyee rek bu ma jamee dinaa dee buur bi ne waa kon baax na rek woo waa dëkk bi ma ne buur bi nar nga koo rey waaye nar ngaa yàqule ndax sa programme yépp moo nar a tas moo tax buur ñu am xel du bari lan moo tax bu alal bëree ànd ak ñu bari pexe xam nga lu tax buur du am xel rek ku ñuy xalaatal foo toll sa xel dootu liggéey dara xale bi wax ko la mu waxoon jox ko fett bi jox ko dóorukaay bi ndeke yow xale bi moom tabax na àjjanam ba pare bu la àjjana leeree ni fa ngay jëm jarul ndogu di la fi fekk bu yeboo nga dem ndogoo ji foofa foofaa neex comme xale bi xam na ni li mu bëggoon mooy ñépp gëm léegi nag buur bi ndeysaan taxaw jël fettam ne bismillah xam nga moo ne woon moom mooy al ilah moo ne woon mooy yàlla waaye mu ne bismillahi rabbil gulaam tudd naa turu yàlla mii borom xale bi fett mu dal ci bopp xale bi xale bi dee dëkk bi yépp ne amanna billahi rabbil gulaam ñépp àndandoo ni gëm nañu yàlla yàllay borom gone gi buur ku ne mu xool ñépp dëkk bi ñépp nekk ay jullit nekk ay nasaara jamono boobu nasaara nasaara mooy dox ñépp ñu gëm rek buur bi commencé jaaxal nag nan lay def conseil ne ko waxoon nañu la ko xale bi dalaa piège kii dalaa nax waroo woon nangu nangu nga léegi ñépp gëm nañu à la fois xale bi fu mu la jaar ba nax la buur bi ne nu may def il faut ñii dañuy weddi wala ma rey leen dem këram mer ku nekk jox ko xalaat buur bi ne koon jaral na ko mu rey waa dëkk bi yépp woo armée bi xam nga armée moom lu buur bëgg mu def ko donte lu bon ci dëkk bi la parce que républicain dëgg-dëgg du nangu loolu waaye armée bi ñëw ñëpp ñëw jël seeni char de combat jël seen affaire buur bi ne nañu dem ba ci dëbbiti dëkk ba gas ay pax yu xóot taal ko safara ba mu tàkk dugal fa nit ñi loolu mooy ux duut pax yi ñuy gas léegi nag yi dem ca biti dëkk ba gas ay pax dugal ca ay matt taal ko bi mu ko defee nag nit ñi ñuy woo par kenn kenn bi ñuy woo par kenn kenn ne la dangay weddi sa boroom walla ñu rey la ñii digg bañ ñu leen di rey ñenn ñi di dellu ginnaaw am na ca benn jigéen boo xam ni doom ji muy boot amul weer jigéen ji ñëw ñu ne ko weddil weddil mbaa ñu boole ak sa doom lakk ndaw si xool doom ji bëgg a weddi doom dina ne ko déedéet yaay gëmal ñu dee dem àjjana ndaw si gëm ñu sànni ca safara mu daldi di lakk xabaar boobu nag bi mu jógee jamono boobu Éthiopie Najashi ma nga fa waaye bokkul ak najaa Najashi bi nga xam ni moo toll yonent bi jamono mais Najashi bi mooy maamu Najashi bi toll yonent bi jamono léegi nag amoon na moom benn commandant de bu soxor bu ñuy wooye abrahatul ashram bi xabaar bi dikkee ñu ne ko ñu ngay rey nasaara ya ca najraan ci la góor googu wooye abraha jox ko arme ne ko dëkk yi ngay romb yépp jël fa ay soldat ànd ak ñoom nga dem libéré ji waa najraan ca la abraha doxee nag ànd ak armeem dem bi mu ànd ak bu doy dugg foofu nag xeex ak buur ak njabootam rey buur ba rey ña fa nekkoon diiney nasaara daldi fay des abraha nag bi mu defee loolu nit ñu bari topp ko léegi moom it mu jàpp ne buur la moom it diggante yooyu xam nga tukki yi day bari dox yi muy dox di campe di ñëw dox yi muy dox di kampe di ñëw gis nag ñenn ci nit ñi di génn di dem màkka di aji mu ne waa ñii lan la ñuy def ñu ne ko ñii day dañuy dem màkka di aji ci baytilaayil xaram bew jàpp ko moom it mu ne kon day tabax kaabaam ndax nit ñi bañ a demati foofu bi mu tabaxee kaabaam benn néegam ba mu jekk defar ko ba mu jekk ne lii mooy kaabaam na fa nit ñi ñëw ñu bàyyi ba guddi benn ci arab yi jaar fa dugg ci biir jonkan fa cabinet fa ba pare binde ko ne ko sa kaaba gi jonkan moo fi jekk bi mu ko bindelee loolu nag abraha xëy dugg fa gis ko nag ak bindum arab yi xol bi jeex mu ne nag fu arab nekk dana la rey dana daaneeli kaaba gale loolu moo indi mu ne day dem ci màkka pour daaneel kaaba gi foofu loolu foofu lañ koy standby bi mu ko defee nag léegi rey boobu ñu doon ray ñooñu yàlla nee na gis na ko bul nga ni dafa seetaan déedéet yàlla seetaanul ndax dafa yàkkamtiwul moo tax borom bi ne ginnaaw bismillahi rahmaani rahim ne wassamaa'i génnaa ci asamaan zaatil buruuji ba nga xam ni dafa am ay nguunu yoo xamante ne ca la biddiw yiy jëm difa fa génnee di tasaaroo di dem mu ne wal yow mi borom bi ne maa ngi giñ ca bis ba nga xamante ne almawuudi mooy bi ñu leen digte mooy yowmal qiyaam bis boobu ñu ñu wax ni danañ fa daje ñépp danañ ñëw ne wa shaahidin borom bi ne ma ngay giñ ci bisu àjjuma mooy shaahid wa mashhuud yowmal qiyaam ajjuma mooy shahid mashhud mooy yowmu arafa mawuud mooy yowmal qiyaama kon al yowmul mawuud mooy yowmul qiyaama wal yowmul mashhud mooy yowmu arafa wa shahid mooy yowmul jumaa noonu la ñëwee ci xadisu tirmidi borom bi ne giñ na ci alchaahidi walmashhuud ne qutila alageef na kan lañu alag asxaabul uxduud waa ngaa dew ya pax ya ñu gasoon di leen lakk lan moo tax ñu leen di alag di leen lakk gas ay pax def ci ay matt def ay xanaadiq di rey ñi gëm ma ni yow mi gëm nekk ci jamono ji yore sa làmmiñ bu réy di wax danga war a xam ni ñu jiitu fa ñu jaar yàlla xam na ne ñun jaaraguñ fa kon ñee gëm ñu leen di rey ñu ànd ak seen ngëm dese ko mënuñoo tollook yow moo tax borom bi ne qutila asxaabul uxduud ne rayeef na asxaabul uxduud mooy waa ngaa dew ya lan lañ leen doon rayee yàlla koy nettali nee na annaari safara day lañu taal zaatil waquud buy boroom tàkk-tàkk safara la ñu taal muy tàkk ñu leen cay dugal lan moo tax ñu leen cay dugal ne idhum ba ñoom yéefar jàpp jullit ñi alayha quud da leen ca toogloo yéefar yi jàpp jullit ñi di leen toogloo ca safara sa di leen lakk ngir ñu weddi yàlla noonu lañ doon def waaye borom bi nee na waxum ñoom ala maa yafaluuna lu bon la ñuy def bil muminina jullit ña yàlla ne shuhud moo tax jamono jii tubaab yeeg ñu mel ni ñoom ñi leen di dimbaleek ñi ànd ak ñoom foog ni ñoom ñoo moom àdduna lu leen neex def a yàlla gis na ko de yàlla nee na lépp la ñuy def wahum ala maa yafaluuna bil muminina shuhud nañu jël seeni vaccin nañu jël seeni bombe H nañu jël seeni nucléaire nañu foog ni ñoo moom àdduna bi lu leen neex def nañu nekk ay franc nañu nekk ay muun lu leen neex nañu ko nekk waaye borom bi gis na ko wa hum ala ma yafaluuna bil muminin shuhud yàlla nee na lañuy def jullit ña lu ñu seede gis nañ ko léegi nag mu ñëw ci jullit ñi ne wa ma naqamu nee na mbugaluñu minhum ca ñoom jullit ña dara sababul ñu mbugal leen illa an yuminu lu dul ne dañoo gëm billaahi yàlla al aziz yàlla ma nga xam ni moo not ci kàttan alhamid mooy ki yeyoo ñu sant ko ñoom daal mbugalee leen lu dul gëm yàlla mbugalee leen lu dul sopp yàlla mbugalee wu leen lu dul jaamu yàlla tabaraka wa taala yàlla moomu nag allazi mooy borom ba nga xam ni lahu ñeel na ko mulku samawaat moomeelug asamaan wal ardi ak suuf wallahu yàlla day shahidun aji seede la ala kulli shay'in ci bépp mbir kuy def defal lu la neex waaye yàlla seede na dara munu koo réer lépp loo nëbb yàlla xam na ko loo feeñal yàlla xam na ko léegi nag yàlla doog a ñëw ci qaida amma bi muy règle générale bi borom bi ne inna alladina naka gaañ a nga xam ni fatanu mbugal nañu almuminina jullit ñi ci sababu seen ak ngëm teg leen mbugal tëj leen kaso teg leen fitna rey leen wal muminaati ak ñëgëm ñu jigéen ñaa ngi ñu góor ñi ñépp ñu fitnaan leen di leen mbugal def nañ ko nag summa gannaaw ga lam yatuubu tuubuñu ñooñu loolu ñu def borom bi ne falahum ñeen na leen azaabu jahannam mbugalu jahannam waaye walahum ñeen na leen adaabul xariiq mbugalu safara buy lakk bu tàng jër ñi ñuy mbugal fii ci àdduna ñe leen di mbugal yowmal qiyaam ñoomit yàlla nee na dana leen mbugal moo tax na gaa yi moytu di fitnaal jullit borom bi ñëw ci ñi gëm yàlla nee na inna alladina naka gaa ñi nga xam ni aamanu gëm nañu yàlla wa amiloo ñu jëfee as-saalihaati jëf yu baax yi te mooy farateeg naafila yi ñooñu lahum ñeen leen jannaatun ajjana boo xamante ni tajri dana daw ca ajjana ya min taxtihaa ci suufam al anhaaru ñeenti dex borom bi ne dugg ajjana bu ay dex di dawkat zalika loolee al fawz mooy texe al kabiir bu màgg màgg yàlla nañu yàlla may texe gu màgg te mooy dem ajjana borom bi ñëw ci kàttanam ak mën-mënam yow doomu aadama loo munti am loo ti def bés dana ñëw sa borom jàpp la borom bi ne inna batsha rabbika naka téeb sa borom wallahi lu waay di def na ko xool bés bu la yàlla ne nikk yonent bi nee na inna allaha la yumli lizalim xatta ida axadahu lam yutliftu nee na yàlla dana bàyyi tooñkat muy tooñ mun na nekk président mën na nekk lu ko neex mu am doole di def lu ko neex foog ni rëcc na yàlla da koy seetaan a bàyyi ko bis dina ñëw bu ko yàlla ne nuus dana bëgg yàlla bàyyi ko moo tax mu ne inna batsha rabbik naka téeb sa borom te mooy mbugalam yàlla wax na ko de ne la shadiid lu metti la yàlla ku mu jàpp ah, da xam ne jàpp la te waxuma moom yàlla nee na la shadiid jàpp borom bi lu tar la lan moo tax innahu yàlla day huwa moom yubdi'u moo sos mbindeef nga juddu mënoo dara dem ba màgg nekk borom doole yàlla ne wa yu'iid mu reyaat la yàllay dundal yàllay rey yubdi'u wa yu'iid ñu ne ah mu ne waaye ba tey de waxu moom yàlla alxafuur mooy jéggalaakoon alwaduud mooy aji ñewete yàlla mooy jéggale mooy aji ñewete yàlla ñu yàlla jéggal suñuy bàkkaar yàlla moomu soo bëggee xam mbaaxam kàttanam nee na zul arshi yàlla moom mooy borom arash almajiidi aras boobu nga xamante ni yeyoo na ñu tàgg ko bépp melokaanu kawe aras amee na ko mooy zul arshi almajid yàlla faalun dafa koon la li maa yurid yàlla lu mu bëgg lay def du xaar kenn du laaj kenn laa yusalu amma yafaal wa hum yusaluun yàlla leen li muy def kenn du ko ko laaj moom rek mooy laaj mais kenn du ko ko laaj bu nit nag bëggee jël place boobu dañ ko naan lii place yàlla la saa ma maa tey lu ma neex def non am na loo mën am na loo mënul kon yàlla faalun li yurid yàlla mooy def lu ko neex mu daal di ñëw nettali yonent bi ne ko hal ataak istuwaar a ngoog moo ndax dikkal na la xadiisul junuud waxtaanu mbooloo ba weddi woon yàlla ñu ne ko ñooñu mooy ñan borom bi ne firawn firawna de demoon na ba ne ana rabbukumul aala wa samuud samuud ñoom it ak firawna xeet yu màgg la ñoon amoon doole yàlla ne yonent bi ndax xam nga istuwaaru firawna ak istuwaaru samuud yonent bi ne ko déedéet mu ne ko ah nañ ko bàyyi balil lazine borom bi nee na nga xam ne kafaru weddi nañ ñoom day fii takdib aji negg lañ ci weddi mu saxa saxa sax duñu ñu gëm waaye wallaahu yàlla day muxiitun aji léem la min im seen ginnaaw seen kanam seen ginnaaw yàlla léem na lépp dara dara dara dara dara mënu koo rëcc ma ne ah, Muhammad lii nga yore nii bal xamal ni huwa moom quraanun alquran la majidun bu tedd lii alquran bu tedd la moo tax ñu war di ko jàng war di ko firi war di ko xam ñu ne waaw alquran bi moom dafa tedd mel noonu fan la ne borom bi ne fii law xin ma nga ca ab àlluwe mahfuuza bu ñu sàmm foofu mu nekk kenn kenn kenn mënu koo laal kenn mënu fa àgg léeg nga dégg gaa yi ñu ne sëriñ diw dee toog fi xool lawul mahfuus mu ne waaye ndaw sàmba ndaw tagg yu neex lawul mahfuus kenn àggu fa ndax am na malaaka yu koy sàmm mbindeef mënu faa àgg mënu koo gis mënu faa xam alquran borom bi ne ca lawul lañu ko def moo tax mu ne fii lawxin ma nga ca ab téere mahfuus bu ñuy sàmm lool yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp defal ko ñépp may ñu dégg alquran waaye may ñu jëfee ko incha allah suba ak jàmm ñu dal suuratu taariq salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu